IGFM ñoo la seet si tey ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant maa ngi nuyu ñi leen di seetaan yëpp internet yëpp di rafetlu trop seen teewaay tey fii nii sama kër maa ngi nuyu ñëpp waa Sénégal yëpp. Aziza ñëw ak euh, benn woy bu single bu bees génnee clip bu rafet bu nice bu doy waar madame Bonheur mën nga ñu wax tuuti euh, ci woy boobu ak euh, clip waaw madame Bonheur nag euh, mooy sama single bu bees madame Bonheur single la boo xam ci album la nekk album bi mi ngi war a génn janvier 2021 donc single la te dina am yeneen single yuy génnaat balaa album bi di génn inshallah. donc madame Bonheur ci album la nekk mooy premier single album bi temps yi actuellement génnee nañ ko mettre nañ ko sur le marché depuis trois jours là on est en pleine promo. Il y a aussi un programme de promotion euh, partout au Sénégal pour l'album bi pour le single là actuellement Dal, on est en phase pour ramener communication actuellement. mais madame Bonheur pourquoi madame Bonheur. madame Bonheur au fait un thème la rek wax les foyers polygames en général parce que c'est le bu baax Sénégal nous avons une dund histoire de foyer polygame dafa au Sénégal donc mu nekk benn constat bu ma def boo xam ne nii ma ne pourquoi pas ñu def ci benn son boo xam ne ne ça va parler des problèmes yi am ci polygamie mais cette fois-ci dama lancer un message un appel à toutes les femmes pour ñu xam ne ne polygamie bokk wërsëg la comme ni ko gars yi di waxee donc jarul xiiroo suñu biir jarul ñuy ŋaayoo jarul ñuy ñaawoo aussi parce que je ne pense pas ko góor yi jar na ñuy reyante suñu biir <laughs> donc bu la boo koy dund jël ko ak philosophie jël ko ak philosophie nga dal nga ànd ak tey euh, gérer sa boor comme ni nga ko war a gérer donc message général du madame Bonheur loolu la gérer yow sa place comme ni nga ko war a gérer euh, bañ a xool kenn bul xool kenn bul faale kenn mais yow nga gérer sa place comme ni nga ko war a gérer côté positif bu polygamie ngay wax ak aussi euh, que jigen ñi gëna xol xool seen que di tout le temps daw ci ginaaw goor ñi parce que polygamie tamit amna ñoo le vivre très mal ça détruit beaucoup de femmes. C'est vrai ça ça détruit beaucoup de femmes et ça détruit aussi beaucoup de familles motax man euh, sama solution moy essayer baña calculer l'autre par exemple bo nekké ci polygame xam nga c'est c'est quelque chose bo xamné c'est une réalité qui est là donc euh, du loo xam ne ne dañ koy dañ koy nëbb wala duñ ko wax wala dañuy gëmloo suñu bopp ne du réalité au Sénégal donc polygamie réalité la au Sénégal et ça détruit beaucoup de familles comme ni nga ko waxee donc moo tax chanson bi dafa ñëw rek pour ñu jël ko positivement ku nekk defar booram rek ku nekk jonge jonge à sa manière booram defar booram bañ a calculer l'autre je pense que noonu rek lañ ci mën a génnee mais bu ñu naree <laughs> wujje carrément wujje carrément donc côté positif la la nekk di wax ci polygamie message bi aussi euh, ci ci man c'est positif da ngay da ngay charrier li naan li charrier da ngay l'autre aussi chacune day wax position moo a neex ci bi chacune da position mooy dëgg au fait man la ñu bëgg man la sama jëkkër gën bëgg et tout donc foo la ay foo la ay kaf ay ree la dama bëgg rek euh, ñu wàññi tension bi am ci famille ñu jël ko positivement ñu kaañoo ku ne kaañoo sa mborom mu fet donc euh, c'est c'est ça l'idée générale le message que ma bëgg a à travers ce son Madame Bouna alors on a vu changer look quand même si clip parce qu'on avait vu Adjouza genre Alicia Keys à la sénégalaise afro look retour euh, à la voilà aux sources mais maintenant Adjouza devient <laughs> tout bas on n'a pas compris. voilà tu sais que xam nga leg leg changer look def ci <laughs> parce que ñu bari dañ ma depuis 7 ans yaa ngi def même look bi changer un peu donc critique yooyu ñu doon critique critique yooyu tamit dégg naa enfin ñenn ñi enfin Adiouza change look bi may def grand théâtre sama famille ñëpp eh, ñëpp su sama famille ñëpp woo ma ne ma fexeel ba nag bul fi afro Adiouza fexeel ba biyoon bu afro tegal ci cheveux yu baax yi defal ni ma comme comme demande bi bari na ci côté mais pourquoi pas changer de look juste un peu euh, aussi changer de look pour visage parce que nit ñi nañ ma look et en marre et tout si mon public quand même c'est mon public là, parce que mon public j'y tiens compte aussi parce que c'est important ñom ñoo tax tay ma taxaw le public bi nga suivre donc critique lay xam nga dafa baax léeg-léeg ngay déglu critique man du ma xool ay euh, buñ buñ buñ may buñ may tàcc je je regarde pas ñi may tàcc je regarde mais critiques yëpp je les damay dem lire critique yi damay déglu déglu aussi critique yi euh, jéem a amélioré wu jéem a amélioré wu xool nu may essayer satisfaire ñëpp donc c'est juste pour ça pour le fun que j'ai changé de look un peu. donc tu vas redevenir la Adiouza afro bu ko beneen clip laajee bien sûr <laughs> mais clip bi dafa dafa laajoon nekk clip bi dafa laajoon fun quoi fun des trucs comme ça des trucs fun jaay jonge fii à la sénégalaise quoi comme les Sénégalaises, boo génnee ci mbedd mi la sénégalaise ni mu mel li muy dund loolu la clip bi laajoon bah je l'ai fait <laughs> et comment Adjouza a vécu la période de confinement de comme on dit pandémie bi Covid alors que artistes c'est une activité qui n'est arrêté arrêtée. donc c'est le moment bi nga pour euh, def cet album bah comme tous les artistes hein je pense que artistes pour petit confinement il n'y avait rien à faire donc nous ngi woon ci studio comme tout le monde bah arrêté au donc j'en ai profité pour faire un album de 10 titres un album national donc en 2021 inshallah il y aura deux albums un album calibré pour le Sénégal et un album calibré pour l'Afrique donc il y aura deux albums sur le marché donc durant confinement bi dal arrêté ma chaque jour je studio di di composer créer donc je je me suis pas arrêtée man confinement ça m'a arrangé quoi ndax ma tout, parce que sama vie stable ma stabilité trop. mais confinement c'est vrai que côté euh, sur le plan financier ça nous a touché un peu parce que ku xam artiste bu de live di jouer de gagner vie jouer tu gagnes pas ta vie c'est aussi simple que ça donc euh, ça nous a touché réellement sur le plan financier mais après avec euh, avec nos autres business et tout comme Togunio, def musique Kessé, donc on a réussi à remettre les choses en place concentré au studio comme man j'ai mon home studio chez moi donc chaque jour maa ngi un studio studio studio de di di liggéey ci nan la bégalé fans yi nan aussi lay jéemee évoluer donc man ci lool rek lay yëngu de dama gëm donc durant tout le confinement loolu def. alors album 10 titres euh, annoncé euh, janvier 2021 incha euh, inshallah léegi mën nga ñu wax euh, contenu album bi euh, album bi nan la nar a mel. waaw bah, su la waxee contenu album bi kay dootul jar bay conférence de presse <laughs> suma ma la ko waxee fii journaliste su ma leen woowee ne kaay ma wax leen contenu album duñ ñëw di non loolu dama la koy dencal rek <laughs> bu kibe bu ñu génnee album bi dinañ def conférence de presse et on évitera toute la presse sénégalaise incha allah. looy mm-hmm. wax fan si ñu xaar. dinañ fecc mbalax dinañ y aura tout album bi li ci particulier moy euh, son bu nek rek dafa am univers bopam donc woy yëpp niroowuñu au fait woy yëpp duñ niroo nag bu yow ngeen préparer ñi nga xam ay dañu bëgg gis Adiouza ci afro lepp du doon afro ñi nga xam dañu bëgg gis Adiouza ci mbalax lepp du doon mbalax son bu nek rek ak univers bopam ak style biñ ko jouer son bu nek ak thème am tamit donc son yi duñ niroo du tout du tout album bi du doon album bo xam bo déggee un son rek dégg nga xam nga album bi en quelque sorte donc son yi dañu différent de trop sax wax parce que c'était euh, c'était mon choix Lola Bougon vraiment vraiment franchement ligué na comme une malade durant tout le confinement pour arriver à avoir ça avec nos différents compositeurs et euh, arrangeurs et beatmakers yo xamné beaucoup bokkuñu sax style donc daal gis ngeen madame Bonheur style bii la mais beneen bii ñëw beneen clip bi war a ñëw incha ça a rien à voir ak style bi ma def nii ça va être un autre style duma duma ci dugg nag duma ci xuus bu baax <laughs> surprise lay doon tamit. <laughs> mais on voit que say say album say woy yi gën a am succès c'est toujours euh, le même thème l'amour tout tourne autour de l'amour pourquoi pourquoi doo diversifier parfois un peu. Euh, c'est parce que les Sénégalais préfèrent mes chansons d'amour combien de fois j'ai fait dama ko seetlu en fait damay xool si ma fait beneen son Boudoul amour nan la public bi recueillir parce que loolu yëpp autocritique le ak aussi le public lan mo leen gëna intéressé c'est important dama gis né suma défé des chansons des sons à thème j'ai fait beaucoup de sons à thème il y a certains Sénégalais qui ne le connaissent même pas xamuñu ko sax xamuñu sax ne Adiouza mës na composer lu mel non? je te jure donc bu ñu bu ñu jugee ci loolu ma gis ne son son d'amour bu ma mënti def rek day def it bu ma mënti def nag <laughs> day def it forcément donc je me suis dit donc que les Sénégalais me préfèrent peut-être ci euh, ci thème thème d'amour yi et je ne sais pas pourquoi peut-être aussi parce que je suis romantique aussi dama koy gën a sentir dama koy gën a feel peut-être que mais ni may fexee ba transmettre euh, sama ci sama son d'amour yi ni may defee ba am une fusion bobo le public j'arrive pas à l'avoir ça samay son à thème avec le public donc cette remarque là constat ça, je l'ai fait c'est pourquoi si qui sont samay retour les en général sont d'amour les donne mais Inch'Allah, album il y a beaucoup de thèmes bah, différents thèmes yo qui n'ont rien à voir avec euh, l'amour et tout donc vous serez vous serez surpris Dal. il y a beaucoup de thèmes Ouais. <laughs> alors euh, en tant qu'artiste euh, comment tu vois les réseaux sociaux est-ce que tu es dedans comment tu vois utilisation réseaux sociaux ni est koy actuellement au Sénégal. Moi je je suis pas trop réseaux sociaux mon nul trop tu, réseaux sociaux je suis trop nul à faire affaires réseaux sociaux mais quand même il y en a une équipe est ramener machallah ñoom ñu ngi ci xarañ nañ ci ñoo ngi ciy liggéey donc léeg-léeg da ngay gis dañuy ñëw fëgg ma defal ñu benn vidéo <laughs> ah, j'ai pas envie de faire mal ne leen aw ma jotu def vidéo pour sama réseaux sociaux ay Facebook Instagram tout des fois j'ai pas du tout le temps surtout boo yoree doom léegi donc c'est pas du tout simple bëgg élever un enfant dugg studio bëgg nekk ci présente ci réseaux sociaux donc c'est pas c'est pas simple mais réseaux sociaux yi man moyen de communication la pour man parce que espace la boo xam dafa démocratique c'est c'est libre Quelqu'un moomu le fekk da ngay am sa yëf dugal ko fa ko mais am na ñenn ñi ñoo xam ne dañuy utiliser réseaux sociaux à d'autres fins donc nous ñoom la engagé mais man côté réseaux sociaux c'est c'est juste pour le travail. Mm-hmm. Alors, euh, on ne ferait pas notre rôle de journaliste si on ne demandait pas à Yusa la vidéo qui a fuité récemment. Vidéo Ngay avec Agne Affaire B. wër ñëpp partager ko <laughs> déjà loolu nan la demee ak noo ko <laughs> mais loolu kii la rek film la <laughs> yaa ma ko gën a xam ba pare di ma ko laajte ah, man xaw ma parce que daa am benn vocal bu fii te ñu ne jànq ñoom Adiouza la <laughs> vidéo bi ñu ne Adiouza mooy xulloog jëkkëram film <laughs> bu ñu doon tourné donc loolu du woon vérité non film la woon rek <laughs> yaa ngi reetaan de oh, film la woon mm. pour vendre l'album buzz wala la la film la rek pour pour c'est le même thème au fait ça parle de c'est le même thème film le hmm. <laughs> donc Rio ya un non le film le quand même film parce que c'est mais nous rien à voir. Hmm? Hmm. rien à voir. Bah, si un peu. <laughs> maa ngi wax ci wéy bi ragaloo mais ragal naa tuuti non xam nga jël lan moo ci délicat man maraboutage bi moo ma moo ma sonal ci ci wujje maratu maraboutage bi ak tamit concurrence aussi la concurrence il faut l'admettre aussi il y a une réelle concurrence ci jigéen ñi entre les femmes ci foyer polygame ça il faut l'admettre c'est une réalité du ñu nekk fii di jaay hypocrite naan ragaluma wujje ba ba ba ba concurrence bi am ci biir y a les maraboutage il lu ne daal ay fem yu bëree ngi ci daal fait fem yu bëree ngi ci donc euh, c'est pas une chose facile mais il faut le prendre du côté positif man actuellement fi ma je suis à la recherche de la paix je cherche la paix stabilité actuellement moo j'essaie de tout voir de manière positive duma fi nekk sax di jël di du ma sax indi côté négatif ci sama kanam nii lépp lu may xalaat rek c'est ça doit être positif donc côté négatif laa bëgg génnee sama àdduna parce que je suis à la recherche de la paix et de la stabilité. Mhm. Est-ce que Adjouza est prête à se remarier Pourquoi vous dites se remarier <laughs> Ah, yo, man, wax ci vie privée. Je ne vie privée jamais. Je ne peux sama vie privée du ma ci jamais te du ma te du tey laay toog di ci wax mhm, donc remarié marié don't care quoi du ma ci wax <laughs> ça compte pas ce qui compte c'est ta carrière ton fils <laughs> nga ne ta carrière l'éducation de ton enfant bah c'est important non c'est l'éducation de mon enfant mon enfant bien avant ma carrière en tant que mère actuellement c'est une maman qui parle ce n'est plus la aussi jeune fille naïve comme ça Légui, c'est la c'est une maman c'est une maman qui vous parle c'est, voilà c'est une femme mature aussi qui est euh, là devant vous et qui vous parle c'est pourquoi j'ai choisi le thème de la polygamie là c'est un thème de femme quoi <laughs> de <laughs> les minettes là. mais je vois que d'après li c'est état d'esprit ak li on a quand même. par rapport parce que tu as reconnu ne tu nga wujje te côté positif. Alors tout. mais mais il faut le prendre euh, du côté positif là. Mhm. Tout est avec mais il faut le prendre du côté positif bañ calculer l'autre je pense pour s'en sortir c'est la meilleure solution. Mhm. ne pas calculer l'autre à côté c'est que le moment nag mais bu ko bàyyi xel trop sinon rek da ngay sonal sa mind te boo sonalee sa mind dalay tardel li gën a métti ci àdduna mooy nga topp benn nit fixé ko di xool li muy def kooku dalay raw au fait boo toppee nit di ko calculer de trop wala n'importe qui nga topp ko di ko calculer de trop bàyyi ko xel kooku dalay raw forcément donc da ngay focus ci yow li nga nekk focus ci sa bopp bëgg sa bopp ah dal ak sa bopp nekk ak yow déjà c'est important bañ a xool leneen bul am dara lu lay disperser fixer le droit sur objectif nga xool devant toi bañ a calculer personne nga dem euh, devant tes objectifs man loolu laa gëm fait. alors actuellement immigration clandestine gis nga mi ngi rey doomu sénégalais yu bëri yow artiste nga sa papa on l'a connu artiste engagé et tout euh, ban message ngay euh, véhiculer pour jeunes yi di jël gaal gi pour dem d'ailleurs immigration clandestine c'est un thème que j'avais qui sera encore dans cet album développé il Nako, mais c'est un thème qui me tient vraiment à cœur Dans album bu ma mënti génnee thème immigration Mon premier album À mon immigration borom mon premier album deuxième album waxat na ci immigration du clandestine mais batay immigration la princesse à Paris bo m'a Paris galère ying galère boo demee yeneen dëkk yi galère yi ngay galère balaa ngay réussir troisième album bi tamit amaat na immigration donc thème la boo xam ne à chaque fois man daf may daf ma interpeller en quelque sorte day revenir ci samay thème yi ma bëgg di wéy yi ma bëgg di interpréter ak yi ma bëgg di joxe avis comme ni ma koy faral di waxee rek il est temps quand même que suñu état yi ñu xoolaat bu baax comment accompagner cette jeunesse bi nga xam ne ne pour man ils sont désespérés en fait ils sont désespérés nga toog ak sa yaay ngay xol sa yaay amul lu mu indi ci kër gi nga nga xol sa papa aussi il a pas de quoi donc des fois da ngay je peux comprendre les jeunes yi koy def parce que pour nga def lolu il faut nga nek ci situation bu extrême extrême extrême pour mener jël sa fit courage à deux mains dem jëli gaal bi nga xam ne presque xaru la nekk ci géej pendant trois jours xamoo foo jëm ak lëndëmbaayu géej ak géej ni mu yaatoo nga am fit boobu mu jaral la ko franchement il faut être vraiment désespéré pour le faire mais aussi on les comprend je vais pas blâmer xam nga man je veux pas trop juger les gens ci seeni décision da ngay comprendre peut-être yow nekkoo ci situation boobu moo tax ngay juger naan pourquoi vous faites ça parce que ñun nekkoo ci situation boobu mais da ngay essayer nekk ci peau ki nga xam ne par exemple amul lu mu añee amul lu mu reere mi ngi doon mag mi ngi jëm mag di xool papa ak yaayam moom def nañ li ñu war a def ci moom et lui en retour il peut pas euh, il peut rien faire pour mënul delloo l'ascenseur donc da ngay essayer wu mettre ci powu ñi nga xam ne ñooy jël risque boobu dem mu jaral leen dee ci géej gi Barça wala Barsax mu jaral leen ko il faut se mettre dans la peau de ces gens-là pour comprendre donc je pense que la meilleure solution mooy état bi jéem trouver donc euh, koy accompagner les jeunes tout ce que je propose ak man loolu rek accompagner la jeunesse parce que la jeunesse elle est là on est là on ne fait rien quoi on ne fait rien absolument rien Il y a rien qui se passe personne n'accompagne la jeunesse donc il est temps qu'il y ait des programmes pour spécialiser pour pour les jeunes au fait lan mooy dernier mot en attendant conférence de presse <laughs> sama dernier mot du lu dul remercier euh, ñi nga xam ne nag dañ nekk sama sama ginnaaw di ma puus nga xam ne dañuy jàpp bu baax ñi nga xam ne ne euh, depuis plus de 10 ans comme ni ma ko doon waxee 10 ans déjà ñu ngeeg ñu ngeeg man ñu ngi sama ginnaaw ñooñu dama leen di rendre hommage tey parce que euh, musique c'est pas simple showbiz bi yombul tamit bëri na ay coups bas showbiz bi yombul du tout bari na ay coups bas y a beaucoup d'humiliation mais da ngay tak sa fit rek jóg taxaw euh, xex mais nak du def lu dul remercier ñi nek sama ginnaw di ma pousse depuis très longtemps suma ma damay djum mais ma ngi remercier ñep di remercier aussi le public sénégalais nga xamné ne saa yu ma génnee rek euh, lu mu yàgg yàgg yàgg lu sama absence lu mu yàgg yàgg yàgg su ma génnee rek ils sont toujours là aussi à me supporter à m'accompagner à pousser ma ci mes projets donc je remercie aussi le public sénégalais pour ça et je remercie, je remercie les fans aussi les fans surtout de <laughs> Adjusa Family yi nga xam ne ñoom it sonn depuis nous sonn ci man tooguñu duñ noppaleku maa ngi remercier ñëpp bëgguma lim parce que ma limee mais je remercie tout le monde du fond du cœur rendez-vous euh, le 12 décembre pour soirée célébrer soirée madame Bonheur donc soirée anniversaire les donne ma ci wo sama ndaanaan yeb di donc j'appelle ñep dal lay tout le monde ci soirée le 12 décembre follet ci Villa Cristal <laughs>